tey bi waa PDS génnee ci dialogue bi est-ce que sa wax boobu yaa ngi koy jàpp ba tey. lépp maa ngi koy jàpp ci dialogue bi xam nga dialogue bi man. non mais ci précisément li ma waxoon li nga waxoon ma jël la euh, ci kàddu yi nga waxoon da ko waxoon mais comme génn nañ est-ce que jàpp nga ni la doon wax lu amoon la fu ndëgër laay ak tey bi nga xam ñoom génn nañ ci. xam nga boo mayee rek dama laay defal genèse mhm. sama taxawaay ak dialogue politique. boo ko fàttali ko ba mu njëkkee woote dialogue politique. Mhm. jamono jooju li ëppoon ci opposition bi dañoo gàntal. man bokk naa si ñi njëkk a wuyu bokk naa si ñi njëkk a teew. pour ñaari mbir pour wane ni benn que ni nii li suma ñaar que ni lépp lu soxal réew mi ñor na ma. ndax buggumaa taxaw ci benn mbir gàntal. wala nangu te aw ma ay jumtukaay yu ma permettre ma xam ni lii baax na am baaxul. ba ma ca demee man. ca ma dem bu njëkk. la ma ca analyser jàng ka ci mooy xam naa ni la ka ca ñoroon ba mu ca weesoo pare na ci. loolu laa gis aussi ci dialogue ñaareel bi. Mhm. bi mu wootee dialogue ñetteel bi mu indiwaat ma même situation boobu ma xam ni la mu defoon sa bu njëkk ba maanaam am na jafe-jafe am na lu mu bëgg a régler mu bëgg wut ay nit yu ko mbubbalal rafetal ko ko daganal ko ko mu woo leen ba mu am ci la ko neex mu génn bi ci mujj li ma si jàpp sama intime conviction li mu ma jox mooy génn nañ ci élection yu doy waar. ñu pour dem ci yeneen élection ñu woo ñi nga xamee ne mooy acteur politique yi principalement seen cible essentielle mhm. mooy opposition bi pour yóbbu leen ci mbir moo xamee ne bu ëllëgee ñooy doon alibi. bi mhm. bii daganal li nga xamee ne moom la ñu bëgg mhm. ndax gëwuma ni man ci fii Sénégal toll dialogue national mooy suñu priorité gawuma ko mhm. te bu ñu demee ci waxtaan bi aussi naa la indil tontu yi waaw mais bala nga may indil tontu yi xanaa di nga ma tontu ci li ma la wax man dama tudd PDS te ba léegi tuddoo leen yow te da nga leen ko ci taxoon ni jóg loolu bëgg naa ko xam tey ñoom génn nañ ci PDS bi dialogue bi mi ngi continuer est-ce que li nga waxoon loolu mi ngi waaw li tax tontuwuma si dama la indil plusieurs raisons yi tax dialogue bi ñëw indil la benn bëgg-bëgg bi ñu amoon pour apaiser le climat social bëgg-bëgg bi ñu amoon pour rafetal seen diggante ak PDS. yaa ngi dégg ndax dialogue boobu dañ ci tegoon ay bëgg-bëgg yu bare. donc li ci am solo ci sama jëmm man bopp. bu may dem loolu nga baal ma su fekkee loolu nga gëmoon tey ñu gis PDS génn ci dialogue bi ban ban lan nga si mën a jàngat. waaw mais li ma siy jàngat man dafa am jàngat bu ëpp doole jàngat bi nga bëgg ma jàngat kese mooy que ni en réalité man bu may dem si dialogue la ma ci yóbbu mooy intérêt yi Sénégal. la ma ca yóbbu mooy ndax lañ fay wax amal na njëriñ Sénégal ndax lañ fay wax dinañu yokk dina indi suñu démocratie dina saxal kóolute ci suñu diggante loolu mooy fondement bi mooy baas bi mais bu ma demee ba nga xamee ne fi may war a teg sama tànk dama gis ni dafa sërëx na ba bu ma taxee damay dugg damay damay sërëx alors balaa may xalaat ci leneen je me pose la question ban intérêt ak ban utilité la jëmm ju mel na man ak engagement bi mu am ci réew mi war a def ci foo xamee ni ay nax mbaay la non mais loolu mooy priorité bi léegi te te pour dalal sa xel ci benn mbir. Ah. am na loo xamee ni Pape addina du yàgg mukk ba ma nekk di di ci dem ci ay détails yoo xam ne ni pour man c'est pas l'essentiel. Mhm. li am essentiel da tudd dialogue ñu woote ay sénégalais. ay kuréel yu bare jóg ñëw. dama tudd dialogue yow nga tuddoon dialogue tudd PDS. xam nga fi mu nekk nii loolu sax dama su dul sore ak yow. parce que man ba may wax dialogue sa jabal gu njëkk ba la ma ca yóbbu woon dama ko wax ci kanamu sénégalais yépp mhm. dama président de la république bu wootee woote bu njëkk loo xamee ne gulit la ci réew balaa ma koy àtte ci lenn damay dem déglu ko ba xam li muy bëgg ak li mu ëmb lan la bu demee bu waxee la ma ëmb man tamit ma wax ko la mu cay teg moo may permettre en priorité mu mën a déterminer wu leneen li ci des yëpp la mu doon wut ak digganteeg PDS am am na ka amu ko ànd nañu léegi wala ànd nañu lu accessoire lay doon parce que principal bi moo doon intérêt national bi nekkoon ci ñu àndandoo waxtaan ci li nga xam moom la ñu bokk muy réew mi. d'accord wax nga ma léegi ci sa biir wax ni am na solo pour nga wax ma yow lan mooy sa xalaat ci ci dialogue yi ñaari dialogue yi muy nationale comme mm-hmm. politique. ban xal ban ban ban ban xalaat nga am ci ñaar. benn bi si njëkk mooy dialogue politique bi. Mm-hmm. pour man escroquerie la. Mm-hmm. ndax. ki gën a néew xalaat ci acteur politique yi journalistes yi nga xamee ni yàgg nañu observer processus électoral yépp koo ci woowoon tëj ko ci benn néeg ni que réfléchiral ma ci ni ñu war a defaree suñu processus defaraate suñu processus électoral fukki minute ak juróom da ko soxla dina leen bulletin unique dina leen nangam dina leen nangam dina leen nangam kon bu fekkente ni dëgg-dëgg au plus au sommet de l'État volonté boo xamee ne dafa dafa bëgg indi transparence ci système boo xamee ne ñëpp ñoo ko dundandoo ci injustice bu mu teg ci réew mi. mais fan fan lañ ko mën a waxtaanee ci ban instance. non loolu waxtaan xam nga état dafa loolu moo tax état ma ne la lu tax ma ne dialogue bi du ma ci d' parce que état ak réew dafa am ay ordre ak ay organisation mm-hmm. xam nga tey jii la volonté politique bu amee ci président de la république mu xam ni kat indi na parrainage boo xamee ni. teguwul si yoon jaarul ci yoon ba bu muy defaat lettre bi nga xamee ne bi muy indiwaat pour pour ñu dàq élection yi ci élection locale yi la moo ca wax mooy na ñu càmbaraat parrainage parrainage bi kon nga xamee ni loi fondement wu société ñu ne la booy def république loi yi dañu war a doon loi yu impersonnel du loi Papa Ngagne du loi Bamba Dièye loi sénégalais yépp la mhm. kon nga xamee ni déjà implicitement reconnaître ni ñoom lu leen neex la ñu def jëm ci loi boobu mais loolu jar na waxtaanee kon. waaw non no non jarul waxtaanee xamul tax jarul waxtaanee ndax caay-caay moo ko laloon au départ te la koy dindi mooy projet de loi. ce projet de loi bu fekkente ni ki nga xam ne mooy acteur principal acteur principal bi di président de la république sincère na ci defaraat suñu processus électoral dama ne mën nañu économiser. li nga xam mooy temps bi ñuy perte ak xaalis bi ñuy perte jëm ci loolu ndax moom man ak sama nawle bu mu mën a doon 15 minutes ëpp na ci pour ñu génne la li nga xam moom lañ ci war a def su fekkente ni am na ci yéene da koy daal di defaat projet de loi. mu jaar fa mu jaaroon démb ñu rectifier ko ci assemblée nationale mu jeex tàkk on ñu économiser temps mais xam nga yow yaa ngi wax li la intéressé mooy par exemple le parrainage. non non waxuma parrainage non am na beneen acteur politique boo xam ne am na leneen xëy na loo xam ni lu ñu war a waxtaanee la waxuma parrainage dama ni processus globalu ah, système électoral bi laa wax dama ni la ca nekk yëpp d'accord ñun ñëpp y compris yow ñun ñëpp xam nañ ko tout à fait donc pour être pour être vraiment conséquent mm-hmm. parce que gis nga affaire bi ñun dañu nekk réew mu tardé ba pare boole ko ak suñu ay déficit suñu caay-caayu bopp suñu ay njuuj njaaj yoo xam ne dafa dolliwaat gën ñu tardeel ñu am dund ay situation yoo xam ne dëgg dëgg ñaaw na suñu démocratie et je pense que ni ki ka bu demee ba reconnaître implicitement et explicitement que ni ñoom seen bopp seen soxla pare na bëgg nañu affaire beneen affaire je pense que ni wàcc daanoo ci gën a gaaw il faut que nit ñi ak acteurs politiques yi tamit xam ne nit ñaa ngi leen di seetaan mm-hmm. ndax bu dul sénégalais yi sax yow ak sa moroom yu bare c'est mm-hmm. des acteurs de mm-hmm. premier plan yoo xam ne dañoo xam histoire politique réew mi mm-hmm. et ñooñu ku defe ne ku ku def ku def tamit ay njaay lañu et c'est pourquoi je pense que ne il faut qu'on soit constructif ñu positif te gaaw ci li ñuy def te bàyyi caaxaan d'accord dialogue national bi dialogue national bi aussi pour man dama ni un état moderne dafa am ay règles règle bi ko lal mooy ñu wut suñu ay institutions am suñu assemblée nationale député ya nekk fa. Mm-hmm. am président de la république président nekk fa sañ-sañ ba nekk fa am bërëbu attekaay yi ña fa nekk di atte. Mm-hmm. waaye bu ñu demee ci réew ba ñu constaté ni. bëgg-bëgg benn nit moo ëpp doole ñetti institution yooyu mun na génne fii dugg ah. fii dem fee dem fee. Cheikh yaa ngi bëgg a nihiliste nag. non non ah, nihiliste non ah, ay bu si nekk. mais dialogue national bi mën nga ma xëy na dialogue politique. mais politique bi dialogue national laa lay ñu war a mën a waxtaanee. ngi am oh, euh, euh, nu ñu koy waxee ci pétrole réew mi. gaz réew ngi am nangam ak nangam. réew mi leneen ak leneen ak leneen xam nga yooyu mooy leer yi. waaw mooy li nga xamee ni moom la ñuy naxee les gens de bonne volonté parce que ñun ñëpp vraiment ay sénégalais lañu gis nga bu doon suñu sago lii ñu yàlla xéewal ci gaz ak pétrole dañ koy jëfandikoo sa anam ya mu gën a rafete mais anam ya mu gën a rafete a mooy constitution wu réew mi anam yi ko gën a rafete mooy loi yeeg règlement wu réew mi parce que yooyu ñooy arkaan yu wér yu wóor yi nga xam ne a xoolaat non non non non aujourd'hui dañu am déficit ci application boobu te tey bu fekkente ni nga jël rek dialogue en tant que tel dialogue national l'Assemblée nationale mooy représentation nationale barab boobu tey jii bis bu nekk dooleem day gën a wàññeeku ñu ngi koy wañ di ko yeew di ko yeew di ko yeew ba débat ci li nga xam ne mooy ñor réew mi sax mënu faa am. kon kay boo amee beneen tribune wax. dëgg yàlla non du problème wuti tribune xam nga mën ak yow dañoo am réew législateur. waaw yow législateur nga parce que da nga délégué sa pouvoir keneen délégué waaw ñun lan mooy suñu est-ce que nit ñi am nañu respect si ñun ba ñu xam ne état yoon bi gën a baax. mooy ñii ñu am législatif am suñu juge am suñu président ku nekk doxal sa cër ba mu mat sëkk parce que bala nga naan naan ne fa. li ngay wax ni waxtaan ko indi. non non waxtaan bu ko indi waxtaan woo dafa jeex ba pare parce que tey jii boo amee benn situation nga am sa constitution jëfewuñu ko nga am sa assemblée nationale muy bërëb bu daane nga am sa justice muy bërëb bu daanee li sa première priorité du dialogue sa première priorité yow mooy lan mooy man ak yow ak président de la république nañu sasoo ñu waxtaane li nga xam ne mooy faratay réew mi ñu toppatoo ko taxawee ko ma teg la ci benn mbir li fi xew yépp ci réew mi laata président de la république di woote dialogue dafa am rek as kuréel ñii di ñooñ politique ñii di société civile ñoo ŋànk xeex bi mm-hmm. bare na ci ay kilifa yoo xamee ni seen baat kenn déggu ko ci woon mm-hmm. est-ce que defar dëgg-dëgg bokk na ci du coow amee ba jafe-jafe am métit am fa nga xamee ni fa la ba ñum russi ñi nga xamee ni ay ay ay wiiruwaay lañu ci réew mi mm-hmm. war a mën a jël seen kàddu ko ci benn biir pour wàññi tension yi pour wàññi jaay doole bi pour fexe ba nga xamee ni ñu bañ a dérivé yooyu yëpp dafa xaw a manqué ci réew mi Cheikh Bamba ba nga xam ne li ma jaaxal yëpp mooy war nga xam ne li ngay wax nii yëpp mu nekk ay taar waxtaan a koy indi non pas donc man mënuma comprendre ñu ne la dialogue national kaay leen ñu waxtaane li nga wax ni yow li nga wax ni yëpp kaay leen ñu waxtaane ko xool nan lañ koy nan lañ koy solutionné nga ni ma même loolu xam nga gis nga boo ko seetee problème assemblée nationale wax nga ko wax nga ko gis nga arkaan yi nga indi si dialogue yëpp waaw boo seetee béy wéy na mbuus ba pare li tax béy wéy mbuus mooy dañu am histoire ak dialogue kilifa gii nga xam ne moo nekk ci bopp réew mi woote ba woote woon journée nationale journée du dialogue national. Mhm. indi ay tëralin yu bare ca biir. te benn benn laa ne la benn ca ya mu engagé mhm. woon yëpp defu ci dara. dëgg la yemul ci loolu mu woote woote ñaareel. Mhm. woote ñaareel wala ko yàq mooy tënk na ay tënkam jëm ci pétrole a gaz ba fas ko ba mu taxaw di wut ku ko légaliser. comment non parce que ñaar moo ci.